الحمد لله الواحد القهار مقلب القلوب والأبصار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل ليكون مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا فأوصيكم ونفسي أيها العباد بتقوى الله فإنها خير زاد يتزود به العبد إلى دار المعاد يقول جل وعلا في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها الإخوة الكرام ما من يوم من الأيام ولا شهر من الشهور العام إلا وللعباد فيها تاعة يتقرب بها إلى ربهم أيها الإخوة قد طلع علينا شهر من أشرف الشهور العام ألا وهو شهر شعبان mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom kese mi yeeyoo cant moom kese mi boroom mi kattan moom borom bi subhanahu wa taala mi wëlbati xolu jaam yi jël ku nekk kéefar wëlbati ab xolam def ci imaan yàlla mi am kàttanu di jël lii di guddi génne ci bëccëg moom mi am kàttan it jël bëccëg génne ci guddi ngir mu nekk ñaari waxtu yoo xamante ni ñu ngi wuutante mu def ci ay waxtu yu jaam bi di war di profito di ko ci jaamu waaye it mu nekk mandarga bu jaam bi di xalaatee ni ñaar ñii di ko ayante muy guddi yëg bëccëg yi ay nattuwaay la yu lay jàngal ni saxoo fi ñuy seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeeru ko moom mi borom mi teddaangi moom mi jéggalakoon gi di seede ni sangu sangu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak njabootam yeeg saxaaba yi ba ba keroog bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla muy yóbbal di gën ci bépp yóbbal borom bi subhanahu wa taala di ñu ko wax ci alquran mu ni dee leen yóbbulu te ngeen xam ni yóbbal bi gën ci fu ngeen mën a doon mooy ak taqwa muy ragal yàlla mooy def lu yàlla digle ak bàyyi lum tere mbokk yi amul benn bis buy fenk wala benn weer wuy teru dudul yàlla suñu boroom jagleel na ci ay waxtu yoo xamante ni jaam bi bu ci góorgóorloo mën naa jege boroomam subhanahu wa taala ñu nekk nag ci jamono joo xamante ni ci jamono yu tedd yi la bokk muy weer wi ñu nekk muy weeru Shaaban mbokk yi naka la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan dundee moom ak i saxaabaam ak yan mbir ñoo ci nekk ci ay xéewal yu bari ci jaam ñi di ci sàggan ñuy jàngale ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam de nee na weer wi ñu nekk muy weeru Shaaban mooy weer la bi nga xamante ni lépp lu jaam bi jëfoon ci at wi ci lañ koy takk jébbal ko borom bi subhanahu wa taala mbokk yi inna min azimi niami almawla subhanahu wa taala ala ibadihi almuminin attaain an hayya lahum asbaabu alfawzi bi rida dafa bokk ci li borom bi subhanahu wa taala luñ ko war di sante ñun jaam ñi mooy mu jagleel ñu waxtu yooyu ba pare fekkeloo ñu ko ñu war ci góorgóorlu ci de màng ci lépp lu yiw ngir am gërëmam moom subhanahu wa taala weer wii di weeru Shaaban moom mooy weerul qura mooy weeru jàngkatu alquran yi weer wi su mosaana teru sahabatul kiram yi dañ daan nammat seeni àlliwa ubbeel alquran gi di ko toppaat ngir waajal ci weer wi ñu jëm muy weeru koor yàlla na ci yàlla yeggale ak jàmm muy weer woo xamee ni it comme niñ ko waxee léegi ci la ñuy takk jëfu jàmm bi jébbal ko borom mindeef mi muy subhanahu wa taala kon weer la boo xamante ni dañ ciy waajal lii du chahru ramadan ñu jëlee ci usamatu bne zayd radiallahu anhu mu den nettali ni qaala qultu ya rasulullah lam araka tasuumu shahran min alshuhuri wala tasuumu min shaaban ñun de gisuñu la ngay woor benn weer boo xamante ni la nga cay weer la nga cay woor duñu gis mu ngi koy woor ci beneen weer bu dul shaaban bi ñu nekk qaala alayhi salaatu wasalaam moom mu ni leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni dalika shahrun yughfalu nnaasu anhu bayna rajab wa ramadan muy weer la boo xamante ni ñu bëri ci jaam ñi dañ ciy sàggan muy weer bi nekk ci diggante rajab bi ñu génn ak ramadan bee ñu jëm ndax ñu bëri ni ñuy waajalee weeru koor mooy waajtaayu àdduna ndab ya waajal la ñuy ndogoo jumtukaay ya yooyu dong la seen xel di nekk ba ñu fàtte yiw yi nga xamante ni ñoo nekk ci weer wi ñu nekk moo tax mu ni weer la boo xamante ne jaam ñi dañ ciy sàggan te fàtte ni te nisfu ba mooy bu demee ba weer waxaaj borom bi subhaanahu wa taala ci lay jéggal jaamam ñi ñëpp ba mu des ñi nga xamante ni ñooy ñu ko daan bokkaale ak ñaar ñoo xamante ni dañoo tongoo mooy ñaar ñoo xamante ni diggante moo nekk seen daam diggante seen seen biir maanaam ñaar ñu xuloo wala ñaar ñoo xam ne dañoo tongante mbokk yi ñetti jamono ngi nii yoo xamante ni ci la jëfu jaam bi di yëkkatiku di jëm ci borom bi subhanahu wa taala bis njëkk mooy ci bis bu ne muy suba si wala ngoon si malaaka yi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala moo leen di yabal ci kaw suuf ñu nekk ak waa kaw suuf ci bis bi balaa jant di so dañuy jël lépp loo xamante ne jaam bi jëf na ko dem gaaral ko borom bi subhanahu wa taala ak ci lu mu mën a fekk lu mu mën a bàyyi naka noonu it ñi nekkoon di surveiller yàlla borom bi subhanahu wa taala yabal leen ci kaw suuf ñuy saytu jaam yi ñoo ñit bu ñu demee ba fajar noonu la ñuy jëlee lépp jëfi jaam bi dem gaaral ko borom bi subhanahu wa taala muy xisaab bu nga xamante ne dañ koy yóbbu dossiers yi ci borom bi par bis naka noonu it la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ni am na ñaari tamit bis yoo xamante ni li ci jàmm bi di jëf ci biir semaine bi ci lañ koy yéegal mu ni mooy yawmul isnayni wal xamis muy bis bi nga xamante ni mooy bisu altine ak bisu alxamis altine lépp loo jëfoon ci diggante àllarba ci diggante samedi dimanche lundi samedi àllarba mercredi jeudi ba vendredi noonu lañ koy jëlee yóbbu ko ci borom bi subhanahu wa taala gaaral ko ko kon muy ñaari bis yoo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana bëri lu mu koy woor mu yawmul isnayni ak yawmul xamis ndax nee na jëf bi ñuy yóbbu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala te te mu koy jëf dafa bëgg buñ koy yóbbu mu ànd ak lii di koor ñu jëlee ba tey ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ni qala rasul sallallahu alayhi wasallam tu'radu al a'mal fi kulli isnayni wal xamis fa yaghfiru llahu li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a illa imri'in kanat bi'atun wa bayna axihi shahna mu ni tamit ni ñuy yóbbee mbir yi muy lépp lu jàmm bi jëf ci biir semaine bi ni ñu koy yóbbee ci kanamu borom subhanahu wa taala am na ñaar ñoo xam ne seen dossier du dem muy koo xamante ne day bokkaale yàlla ak ñaar yi nga xamante ni dañu am diggante mu ni nag ñetteel bi nga xamante ni mooy ñetteelu jamono bi ñuy takk nag lépp lu jàmm bi jëf di ko yóbbu ci borom bi mooy bis bi nga xamante ne mooy ci weer wi ñu nekk ci xaaj ba muy nisfu Sha'ban te ñu bëri dañuy xaar sax ba ci bis ba ñu soog ko woor waaye li wér ci xadis yi mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam li ñu nettali mooy daana woor Sha'ban la ko tàmbalee ci tàmbali ga ba ci nisfu ba wala daana dem sax ba ëppal ko am na xadis wax ne sax ni yonente sallallahu alayhi wasallam daana woor Sha'ban lépp aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat di wax lan moo tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daan bëri lum doon woor ci weer wi di weeru Shaaban mu ni ndaxte lii di koor dafay lugg jaam bi ci bépp cëram ndax doomu aadama bi tànk mi ngi lekk ka naan cëram yépp dañuy sawar waaye li nga xamante ne mooy koy lugg ba tax ba cëram yi duñu dem ci lépp yi ñaawteef mu ni lii di koor dafay tënk doomu aadama bi ba tax na sax ci ki nga xamante ni dafa nekk waxambaane yaramam toll ci muy am ay yëg-yëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa la wax ni soo demee ba bëgg a ñàkk sa bopp ba doo deraaye def lu yàlla di tere nee na na nga saxoo di koor moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni loolu de bokk na ci li tax mu daan bëri lu muy woor ci weeru shaaban bi ngir waajale ko lii du shahru ramadan waaye it moom alayhi salatu wasalaam mu jàngale ni jëpp jëf bu jàmm bi di jëf muy julli yeeg aj gaag lépp nee na yàlla da koy defal ci kontam directement illa sawm ba mu des koor koor moom borom subhanahu wa taala mu ni asawmu lii wa ana ajizi bihi koor man maa koy yëkkati fayal ko sama bopp sama jàmm ba tey mbokk yi dafa bokk ci yi ñu gën a sopp ci weer wi ñu nekk muy weeru Shaaban mooy ginnaaw bi yàlla suñu boroom di taxawee ci nisfu Shaaban jéggal jaam ñëpp yàlla ñu yàlla boole ci ñi muy jéggal nee na bu ko defee yow da ngay doon koo xamante ni ku sell ngay doon ku set wecc ci dëgmal weer bu màgg bi nekk suñu kanam muy weeru koor mu ni naka noonu it nga war a sàmme li nga xamante ni moom la yonente bi salaa sallam wax ni ala wa inna fi ljasadi mudga ida saluhat saluha aljasad kullu wa ida fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb noonu nga war a nammaatee sa xol def ci pas-pas bu wér ba tax ba ñaar yi tax say jëf du yéeg nga mën a bàyyi ko xel benn mooy di ngay bokkaale suñu boroom ak képp ko mën a doon waaye ñaareel bi it nga fexe ba sa xol nga laabal ko ba sa digganteeg jaam ñi mën a sell ndax laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi amul kenn koo xamante ne mën nga taxaw nga ni man de ku gëm yàlla laa lu dul li nga bëggal sa bopp loolu nga bëggal sa moroom diggante yi am ci jamono ji bokk na ci li ko gën di amplifier muy jamono joo xamante ne yàqu na ci développement technologie bi da ngay gis léegi koo xamante ni daanaka lu ñàkk di solo lu seytaane dox ci seen diggante mooy xew ci seen biir mu génn wax ko kenn ca saasa rek mën nga gis ku ci bind texte rek envoyé ko bu ko defee mu doon loo xamante ni mën nay wër di wër di wër ba egsi waat ci nga xamante ni moo tax kay wax yooyu bokk na ci liy tax ba li xew ci diggante yi di gën di ñaaw di gën di ñagas kon mu nekk masuliyaati ci kenn ku ci nekk fépp foo gis ab diggante waxuma la yow loo xamante ni sa diggante keneen la waaye nga xool nan nga ci war a mën a doxee ngir islaax ak ci seen diggante mu bokk ci li ñuy waajalee ba tey weer wi ñu jëm muy weeru ramadan mooy ñuy bëri lu ñuy naafila ci guddi yi alal aqal bu dee ñaari rakk sax nga jug julli ko ci guddi gi tëddaat booy tëdd wala nga dem ba guddi gi cate nga jug julli sa ñaari rakka soog ñaan sa borom subhanahu wa taala ngir nga tàggatoo ko sa bopp ci weer yi nga xamante ni moom nga jëm muy weeru koor nga ciy dàkk laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'i alfajr mbokk yi yàlla ñu yàlla fekkeloo lii du shahru ramadanul kiram te lépp luñ ci séentu ci ay yiw yàlla nañu yàlla tasaleeg moom weer wii di Shaaban it yàlla nañu yàlla defal kattan defal nu wér ba ñu mën cee màng lépp luy yiw li ci jullit bi di séentu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله